ayca mi ngi noonu allah ci kaddu gàngo jërëjëf ajaratu Betty am mbégte di am kontaan di del seeg yéen seen rubrique bu mag bi nga xamante ni moom la ñuy pajum cosaan ñu ciy ànd ak Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis di ci waxtaanee lépp loo xam ni jëm na ci wàllu actualité waaye itam di ci waxtaanee lépp loo xam ni jëm na ci wàllum pajum cosaan ñu bari dañuy wax ni li xew ci pénc mi alxamis la ñuy xaar ngir Cheikh Bara fàcce ngir ñu mën a xam li ci pénc may lan Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñi ngi lay nuyuwaat. aasbillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi man wala fala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min qurati jasaan bima kaanu yamaluun maa ngi lay nuyu alaaji Sanjoogu di nuyu ñi ñuy seetaan ak ñu ñu bokkal euh, plateau bi di nuyu ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew yëpp liital ci nuyoo yi ak siyaara yi Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général de Mouride di ñuy teg euh, sunu way juróo ci kër ga di soxna Baali Mbacke Mountakha di nuyu Serigne Abdou Samad Mbacke mu Serigne Souhaïbou ak Serigne Fallou Mbacke mu Cheikh Souhaïbou di nuyu seriñ Basirou Mbacke mu sëñ Abdoul Khadir di nuyu sëñ Abdoul Khadir Ndiaye xalifa sëñ Darou Assane di nuyu sëñ Moustapha Mbacke ibnu Cheikh Sidil Makhtar ak soxna May bintu Cheikh Sidil Makhtar ak euh, sëriñ Abdou Samad Mbacke ibnu Cheikh Sidil Makhtar sëriñ Moudou Aïssa ak euh, sëriñ Khadim sëriñ Saliou ak sëriñ Jili ak sëriñ Abdou Latif di njaboot sëriñ Sidil Makhtar yëpp maa ngi leen di nuyu ak sëñ Ateex di nuyu Moulay Aziz Guèye bu baax di sama xarit ak maître maam Adama Guèye magam waaye di nuyu bu baax tamit sama nijaay sëriñ Khadim Lo Gaydel borom daam. Hmm. <coughs> jërëjëf Cheikh Bara borom léegi Cheikh Bara Euh, balaa ñuy démarrer waxtaan bi dafa am kàddu yoo xam ni euh, da nga ko yëkkati woon avant les élections mu nekk kàdd yoo xam ni man bi nga ko yëkkatee ma déglu ko dama ne Cheikh Bara mi mi ngi ci risque lii mu wax nii fu mu ko teg ba tax mu wax lu ni mel euh, ba tax daal ma ne risque daal def nga ko ñu xool kàddu yooyu nga xamante ne bi moom nga yëkkati woon ñu ànd ci ak waa moo Modou nga envoyé ñu kàddu yi ñu déglu Cheikh Bara lan la waxoon avant les élections moo tax élection yii man maa la jox benn affaire mhm. amul benn candidat buy gagné sa bureau de vote à part Diomaye képp candidat yëpp nag te li ma la wax de li ma la wax ni mathématique laa la jox doone ma ñoom ñëpp kenn du ci gagné sa bureau de vote bu amee kenn ko ci échappé lu tuuti te ci tane Khalifa Sall lay doon boobu tuuti. sa Grand Yoff ak Thierno Alassane te ñoom sax dañuy perte seen dañuy perte sax seen bureau de vote yi mais ñooy tane sax gaa yi ci des ñi moom duñ gis dara. Cheikh Bara Cheikh Bara fii moom da ngaa woon yow it sa carrière defe naa parce que li nga wax nii moom <laughs> sa carrière tegoon nga ko ci pécc bi Cheikh Bara lan nga gisoon ba tax nga ne amul kenn kuy gañe bureau votam te loolu demee ni nga xamante ni bii noonu nga ko waxee woon lan nga gis. waaw xam nga lii li tax ma wax ko dafa demoon Daaru Moxti. Mm-hmm. am fa ay problème ma wax ne. Mm-hmm. Amadou Ba du gagné élection yi. du nekk président de la république ci àdduna. Mm-hmm. daat koy waat jël ñaar yi nga xam ne xam naa ne euh, ñoom ñaar mooy lu mustaxil ma nekk ko. muy xanaa ma wëlbatikuwaat nekk jigéen te loolu mënut a nekk. wala ma wëlbatikuwaat nekk leneen lu dul am murit te loolu ñaar yooyu moom jàpp naa ne ñaar yooyu mooy loo xam ne mustahil na mënut a nekk. ma ne boo amee lii am xam nga loolu moom da nga cee war a dégg rek du am. waaw léegi nag euh, après kii dalal ma di ma laaj ci yooyu ma ne ko nag di ma wax que ne loolu ma def comme ni nga wax rek erreur laak ma ne ko bu nee bu dee dama ko lambatu. te teguma ko fenn. waaw def naa erreur bu rëy. waaye fekkee nag li may wax xam naa ko dimaa soriwul. Mhm. waaw te ma ne ko sax li ci li ci amaat solo mooy. benn candidat buy gagné bureau de vote amul. Mhm. ñoom ñëpp te yaakaar naa dix neuf candidats yëpp kenn gagné ci bureau de ba nga watee waaw ku dul Diomaye donc benn Diomaye rek laa ci génne woon. Mhm. ñi ma waxoon ñoo ci tane gisuma seen chiffre waaye xam naa ne ñoo ci war a tane. waaw muy ak. xalifa. waaw Thierno na tuuti moo defe naa. waaw boo ñu rombee am na loolu mais xalifa euh, moom piir moo ko xaw a lool. jeex na kon nag mi ngoog hmm. léegi nag loolu la man li ma doon wax xam naa ko. Hmm. xam na nit ñi moom. surtout sama mbokk yi. nga waxaat tamit ne balaa. waaw maa la ko waxoon fii ah yow kay loolu kay nga waroon a dugal saa njóogu. résultat yi loolu. loolu nga waroon a dugal waxuma la fii keroog ne la. waaw soo ndogoo. waaw bépp sénégalais bu ndogu bala ngaa naafi la. waaw nga xam sa président. waaw loolu wax nga ko nga ne ma loo wax ma ne la alxames dinaa ñëw fii dinaa toog fii. élection yi premier tour la su alxamesee Sénégal dina xam kan mooy président Sénégal. Mm, alxames a ngi nii maa ngi nii loolu fàtte woon ko. maa ngi nii toog alxames a ngi nii. Mm. xam nga président wala xamoo ko. loolu da nga ko gisaane woon da ko xool. wala dañ la ko wan wala da nga. en xam naa wala nan la yëf demee woon. waaw xam na daal en daal man. waaw. dama bëgg sama mbokki sëriñ yi. waaw. du ma wax sax sama mbokki sëriñ yi ndax ñi ci ay sëriñ non am na ñoo xamante ni ñi ci ay sëriñ moom ay sëriñ lañ waaye bu dee yow bu dee yow da ngaa jàpp na yow mhm. maag yow ñoo tolloo xam-xam man taxaw naa ma ne di bu diw nekk gañee ma ne ma ma am jëkkër kay mhm. yow tamit da ngay taxaw nga ne bu diw gañee ma am jëkkër comme man nga xam ne maag yow moom kenn du ci rëcc waaye mënoo ñoo naan non li mu wax nii di wax ay tappale gis nga bu ku amut xam-xam ñëwal ma jàngal la waaw ñoom laay waxal sa gaa yu bari wax yooyu rek di ca ba tararari hmm. ku ci amat xam-xam ñëw fii nga aliwa te ma jàngal la hmm. af ay ay tappaleeg yu ma xam hmm. saa man li ma <laughs> ma la waxoon daal mu ngi gis nga ko gis nga ko wasalaam voilà man sax nekk fii naan ay maa waxoon leeg maa waxoon laa uh-huh. ba may fii ci dëkk bii ne Macky Sall du def du amati ab ab ab ci kaw suuf bu la 2 avril jàllee ma Macky Sall jeexal na yaakaar naa leen mu ëpp at waaw ba ma koy wax booba Macky Sall ci boppam jàppoon na ne day def troisième mandat da koy am. Mhm. ma taxaw fii waat ci sëñ Touba Mbacké ne du ko am. def na lu mu xam amu ko de. Mhm. voilà nit nag bu ne fu ma joxoñ ab jant génn fa del joxañ penk. Mhm. waaw ay wax di làmbatu moom bu bii paa da wax dëgg bii paa doo wax dëgg bu dee nag li ngay wax am na ay sources yu leer yoo koy teg. ah kooku nag moom su ma ko waxee man maa ko wax. voilà ñoom nag gërul ñuy bari wax parce que yow bu fekkee man dama ne dimanche la. waaw diw lii mooy am yow kenn négal ba dimanche waaye bëgg ci njëkkante defi vidéo woo site yi kenn ku ne di jaay taral rek maa ngi leen gis ñoom ñëpp gis nga leen waaw maa ngi leen di xool man kay moom ah. ñoom tamit <laughs> que yaakaar naa ne bi affaire bi amee ñoom dañoo nañ génnaat ne dañ doon fen wala ñu ne ma baal ah, a ne ma ah sëñ baarakat ay la yéwén nangam mais hmm. taxaw bëgg a bëgg a dugg ci ron ron lal yi baal naa leen nañ nekk seen ron lal waaw <laughs> ah. waaw surprise doo ñoom ñëpp Amadou Ba lañ doon waxal. Mm-hmm. waaw Amadou Ba ci boppam. Mm-hmm. ay sëriñ la yaakaaroon. Ah. jël addunay sëriñ indi ko Ndakaaru appartement meublé yëpp mu sarta fay sëriñ. Ah. barke sëriñ mbamba fu ne mu dugal foofu sëriñ jàpp ne. defe ne moom maa affaire bi mën na ko wëlbatee wëlbati moom daal tiktokeur yi sëriñ yi. Ah. la ko yaakaaroon. foofu la ko tegoon waaye sa junniy sëriñ maa leen man hmm? moom xam naa woon xam naa. jërëjëf Cheikh mbir moomu sax parce que yow mii xam nga Cheikh Bara doomu Touba nga te Moustapha Diakhaté périer na Touba moom moom bi mu jëlee ku dafa mel ni Touba la sippi mer mi xam naa nag résultat Touba yi na mu doon dawee xam nga tamit résultat Touba yi mu Cheikh dafa xaw a doy waar parce que deux cent soixante nangam Amadou Ba seize loolu wax dëgg fa yàlla naqari na Moustapha Diakhaté ba Moustapha Diakhaté dal na ci kaw Touba nee na nag tuubaa ñoom xamuñu waaw te it wax na fa. maa ay wax yoo xamante ni bii moom. moom doo nga ci mën a wax. maa ngi nuyu Mamadou Makhtar Sarr. Mamadou Makhtar Sarr ah, nee ko dinaa ko woo damaa nekkoon ci xat-xat yi rek. gis naa may woo keroog xam naa résultat <laughs> tubaay la may doy. léegi Moustapha Diakhaté damay résumé nit ñi li mu wax ci gàttal. ñaawoon na waaye wax ba pare. pour ñu ah. mën a xam li ma koy tontu. Mm-hmm. mooy wax ne. Touba wateel nañ koo xam ne du seen mbokk ci diine. Mm-hmm. du seen mbokk ci pas-pas. du seen mbokk ci dara. waaw daa di ne. Euh, loolu nag day wane ne 1927 mooy ba sëñ Touba génnee àdduna. la nit gëj a defaroo Touba nee na sëriñ Touba moom 1927 ak tey jii kenn defaroo fa. Mm-hmm. nga xam ne kon Touba sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Muntaxa mi fi nekk. Mm-hmm. maanaam dañ faa nekkoon noonu waaye defaruñ kenn loolu nag euh, amul problème dinaa ci ñëw. Mm-hmm. waaye dafa am loo xam ne ci aspect intellectuel laa koy njëkk a tontoo. ba noppi doo ko tontu ci aspect bi mu waxee. su fekkente ne Touba dañoo maanaam pourtant Touba ni ñu watee. 2012 ak léegi. noonu la maatam di watee 2012 ak léegi. te mosoo dégg mu tudd waa maatam waaw ñoom ñëpp dañuy ànd. bokk wateel kenn nit. waaw ñu ngi koy def di ko defaat élection yu ñëw. Mhm. pourtant waa Touba ñoom ñëpp dañuy ànd wateel kenn nit. Mhm. mi ngi koy ŋaññi ci tuuba te ŋaññu ko ca Matam. lu tax loolu Moustapha Diakhaté. Mhm. bu dee maatam sax man ngaa wax ne ñoom ñëpp dañoo ànd di wateel kuñ bokk seenu mbokk mu fa dëkk. Touba nag ni ñuy def. Mhm. loolu kuñ defarut. waaw ba noppi mënoo koo def. Mhm. mooy nga wateel nit koo xam ne Moustapha moo wax ne du suñ mbokk ci diine. waaw d' accord. Mhm. du suñ mbokk ci tariixa. d' suñ mbokk ci dareet. waaw d' accord dëkkut ca dëkk ba. Touba kay ku nit kuñ defar ba noppi. loolu ñu def noonu àdduna lañ ko war a jàngal. kuñ defar ba noppi moo mën a xool nit koo xam ne vision rek nga ko àndeek moom. ak jaar jaar. rek nga nga ko xool ci moom waaye xooloo ne bokkul ci tariixa xooloo ne bokkul ci diine xooloo ne bokkul ci mbokk gi mm-hmm. nga wateel ko ngir jaar-jaaram ak vision bu mu am ci réew mi waaw kon kooku buñ ko defarut ba noppi mënu koo xam mm-hmm. dégg nga buñ ko defarul rek mënu koo xam mm-hmm. kon dañ koo defar kon Moustapha Diakhaté Touba mënuñu leen a ñàkk defar ba noppi ñu mën a jël vision boobu pourtant àdduna bi yépp dañuy xeex nit maanaam guerre civile am ci bu fekkonte ne waa Fuuta dañ ne Macky Sall moo bokk ak ñun fii la bokk mooy jiite réew mi. waa Siin ak Saalum ne Jomaay ci ñun la bokk mooy jiite. waa Touba daat ne par exemple Bougane fii la bokk suñ mbokk la fii la juddoo fii la jaar ñun moom la ñuy fal. waa Casamance ne Sonko la maanaam loolu mooy indi guerre civile. mais su fekkente ne askan wi mature nañ. ba yow nit ki bokk ci yow te yorul programme bu baax. Mhm. ki bokkut ci yow te am programme bu baax ci sénégalais yi moo la ko gënal. waaw kooku mooy ki ñu defar. Mhm. kon moom li mu waxal waa Touba. Mhm. ak defaru rek moo mën a tax Touba di wateel Diomaye. waaw bi ci des nag mooy nee na 1927 ak léegi defaruñ kenn Touba bëgguma cee yàgg nag parce que amaluma njëriñ. waaw waaye moom loolu bu ko waxee dama koy laaj fu baayam defaroo. Mhm. fu waaw ndax 1927 moom fekk na baayam defaroogul. ndeyam fu mu defaroo bañ mën koo yóbbu ci néegub sëy muy sëy ba jur ko. bu dee defaruñ kenn kon ko defar ndeyam ak fu war a defaroo. 1927 moom fekk na juddoogut. waaw fuñ ko defaree moom. te fu mu hmm. toll naan sëñ Cheikh ma yar jàngal ma ba ma màgg kon suñ Cheikh mi la doon yar jàngal la xanaa moom bokkul ci sëriñ si. Hmm. bu loolu lépp jàllee nag ku sa koo xam ne gëm nga ne yow sa ndey defaruwut. ndax bu waxee waa Touba defaruñ kenn moom sa ndey defaruwut. Hmm. gëm nga ne sa baay defaruwut. gëm nga ne defaruwoo yow nooy xàmmee ku defaroo ku defaruwut. <laughs> moo tax waxkat day wax ba làmbu taatam ne wi du saa di saaga di saaga ba saaga sa ndey sa baay nag saaga sa bopp. moom la Moustapha def. Hmm? waaw ah bu fekkee kenn defaruwut Touba kay kon baayam lay waxal. Hmm? waaw ndax baayam moom li waa Touba def ci moom bu ci génnee mu jeex. Hmm? ndeyam kasaalika moom mooma kasaalika. waaw te xam naa ne ku kawat wat uuf ko tudd ko sax Mbàkke la sant. waaw kawat baayam uuf ko tudd ko mbàkke la sant kawat ndeyam uuf ko tudd ko mbàkke la sant kon ñun bu defarut bu ñu defarut moom fu mu defaroo waaw waaw taawam boobu Mouhamed ki ko wat tudd ko Moustapha taawam ki ko ki ko wat tudd ko Mbàkke la sant hmm. yow li waa Mbàkke def ci yow buñ ko dindee mu jeex nga ne waa Mbàkke defaruñ dara kon kay sa baay ngay waxal hmm. mhm. d'accord jërëjëf Cheikh ci mbirum defar googu defaru gi defe naa ni leer leer na faram fàcc nga ko ba mu daal di leer eh, sa waay xam naa temps yi kon dina calculer waat mbir yooyu Cheikh <laughs> ñu ñëw ci laaj bi ñëpp di laaj Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag Cheikh Bara nag euh, jaaxal na nit ñi xam naa jaaxal na sénégalais yi jaaxal na leen trop et puis jamono jiñ toll nii tamit nit ñaa ngi jaaxle ci Ousmane Sonko lan la war a doon ak lan la war a kii ak ginnaaw bi mu falee nit ñi ba pare defe naa ñi mu faloon moom ñu ne faluñu ko bi résultat yi génnee nangu nañ ñi moo leen fal léegi parce que loolu moom wane na ko. loo ñuy wax ci ki nga xamante ni kii mooy Ousmane Sonko ak tamit fi ñu jëm lan nga yaakaar ni daal moom la war a taxawee ci nguur gi nga xam ne bii président Diomaye Faye euh, mi ngi koy incarné. waaw léegi nag loolu moom ñu koy Sonko dafa nekk loo xam ne. Hmm. Euh, ab temps bu bari la laaj. temps bu bari tey mooy émission boo xam ne li li teewandoo ci sama bopp bi. Hmm. lu nekk nga xalaatandoo ko bëgg koo waxandoo sax du lu xaj ca temps bi. Hmm. parce que loolu nga wax rek daanaka maanaam ab thème bu rëy rëy la muy usmaan Sonko ci boppam. parce que man dafa am loo xam ne da xalaat naa ko te yaakaar naa ne dinaa ci woo peuple bi yëpp. Mm-hmm. mooy ñu taxaw ci jëmmi Ousmane Sonko jàngat ko. jàngat moom mooy kan. ak jaar-jaaram. Mm-hmm. ak lan la def ci démocratie Sénégal. Mm-hmm. ak askan wi fan la leen jëm Ousmane Sonko féete. parce que Ousmane Sonko su ma ko doon wax moom ak askan wi damay wax ne ñaar lañ ñoo xam ne kenn mënut a fay sa morom. askan wi ak Sonko Ousmane Sonko askan wi. askan wi mënuñoo fay Ousmane daf ñoo dindi ci lëndam goo xam ne. Mm-hmm. ak loxo yoo xam ne mënoon nañoo dundaat juróom. mu ñuy lorta duñ ci mën a génn. Mm-hmm. mu ñëw dindi ko ak prix bu seer. Mm-hmm. ci njëkk ci moom perte liggéeyam njëkk ci moom perte euh, euh, ak indépendance am njëkk ci moom maanaam ñuy dóor di tëj defe naa ne nit ki gën a ŋàññi xas ko ki téeméeri at yi Ousmane sonk la tudd. li ñu ko xas ak li ñu ko ŋàññ ak li ñu ko wan ci xeetu kàddu rek maanaam verbal rek li ñu ko jëmee ci kawam. Euh, kooku Ousmane sonk la ak liñ bind ay livre ci benn bu ci nekk maanaam bu doon maanaam ci yàq deram dong la lépp nag maanaam am lu mu bëggaloon askan wi bi mu ko bëggee tamit li tax askan wi tamit Ousmane gën a fay mooy dañoo futti ko ànd ak moom ñii di ci dee ñii di ci dem kaso ñii di ci ñàkk seen liggéey comme moom mhm. waaye terewut xe ànd nañoo xeex ba li mu bëggoon mhm. kon donc Ousmane mënut te fay ndax defal nañ ko lépp ci prix bu seer ñoom itam Mhm. waaye askan wi mënuñoo fay Ousmane Ousmane mënut a fay askan wi waaye askan wi mënut a fay Ousmane Sonko. parce que bu dul woon ak moom jàpp naa ne heure bii maanaam makki sàll mu ngi làbbali troisième mandat ba war a def prêter de serment continué waat ak ñun fu ñu xamul. Mhm. donc kon loolu mooy usmaan Ousmane nag dafa am lu man am lu mu mënut. Mhm. lim man mooy taxaw doon as gor. Ousmane ku ko natt ci gor wàññikul. ba noppi am aw fit ku ko natt ci fit wàññikul. ba noppi am ak doylu maanaam doylu ku ko natt ci doylu tamit wàññeekul lépp loo xam ne rek maanaam man bu ma ko doon lim par benn day bari parce que tey dafa corriger tubaab yi nga hmm. demoon jël ay Machiavel mooy ñi nga xam ne dañoo théoriser politique waaw waxoon mooy politique ak jub mënta ànd hmm. boo bëggee def politique doo jub boo bëggee jub doo politique Ousmane nag leen a weddi hmm. mooy dafa def politique ba noppi jub ba noppi réussir ko. Mm-hmm. te loolu dafa nekk loo xam ne Sénégal ni askan wi tëdde ak ni ñu demee maanaam kii politique te jubut. Mm-hmm. maanaam day mel ne aw xiinu noor rek ak askan wi. day am lu mu ëmb ci moom loo xam ne saa bu ko xamee bàyyi ko. Mm-hmm. ki nga xam ne dafay politique te jub. kii jub sax te politiqueul sax bu ko askan wi xamee ne kii dafa jub dangay gis askan wi yëpp nangulandoo ko. donc kon Ousmane dafa corriger tubaab yi ba noppi indi model politique boo xam ne. ñun senegal ñu wërta nangooti sax ku amul façon bi Sonkoy politiquer ñuy nangu di déglu saw discours. waaw donc loolu ci la nekk bi ci des mooy boo demee Mandela na mu mel am na lu mu ci def lu bari mais am na lu ci bari loo xam ne Afrique du Sud ko ko defal. Mm. muy peuple ba. ñun am nañ am Mandela tey. Mm. waaw Mandela xeex na. Mm. malgré que lépp doon xeex sax lu lu yu bari la yoo xam ne méngalewu ma lu bari waaye dafa xeex te bi mu jotee bi mu xeexee jot na ci nguur. Mhm. def ci cinq joxe ko. waaw joxe googu mu ko joxe ci cinq ak li mu ko xeex ni mu bare mhm. ci lañ ci la ci la ci la ci la ci la yëfam gën a jëkkati. waaw Ousmane nag xeex na ko te bi ci jot jotee. maanaam joxe jotu ci. te bari na anam yu mu ci mënoon a jotee. Mhm. ndax Macky Sall ku ne xam ne ne bu ko jàppale woon ci puusu élection yi. peuple bi nangu ci. conseil constitutionnel mën na leen a topp. te bu ñu àndale yi rek Sonko mooy nekk candidat. bu nekkee candidat mooy nekk président. waaye sàmm démocratie Sénégal. Mm. moo tax nanguwul Macky Sall wax waxu fomm élection parce que mm. bëggul institution yi yàqu ba pare moom mu koy jiite mm-hmm. boo demee ni euh, euh, Thomas sànkara ca Burkina mm-hmm. am nañ Thomas sànkara parce que tey ci li muy woote ci Sénégal ak panafricanisme gi muy woote am nañ te sax da nga naan euh, Mandela non Thomas Sankara ni mu jote ci nguur Ousmane Sonko mënoon naa jote noonu ci nguur te ba mu ci accès dana du ko def mm. parce tey deux mille vingt et am na nu mu doon demee bu toppoon population bi mënoon naa dem ba mën naa doon euh, waxuma la sax jot ci nguur gi waaye kon yu metti yi ko Macky Sall tegaat yëpp su su ko neexoon du ko du mag Sall du ko ko teg parce que deux mille vingt la nguuram di jeex. mais xata Ousmane ku gis yam defoon xam ne ko am ko am vision la ci kanam. maanaam hmm. dina xam lu ñëwagut. xamoon na ne deux mille vingt et un bu Macky Sall gi tamit du doon jàmmam du doon jàmmi ñi àndal. Hmm. waaye ñàkk jàmmam ñàkk jàmm ñi àndal. daf ko jural mu bàyyi askan mu mu bàyyee Macky Sall nguur gi pour institution yi mu yi mu fekk yi Macky Sall téye ay institution yi taxaw hmm. kon Ousmane Sonko da ngay gis ne saa bu institution Sénégal yi taxawee ay bëgg-bëggam taxaw day day bàyyi mu jàll kon kooku nit la koo xam ne ñun peuple bi ñun ñoo ko war a delloowaat njukkal hmm. aar ko protéger ko protéger boo xam ne nag maanaam euh, parce que Sonko dafa def révolution hmm. bu yéeme boo xam ne maanaam ci Pacifique la ko def Ousmane wootee na ba am ay parrainage yu ko mën a yóbbu amana am 15 pour cent ci élection ah. mën a def ket am un am lu ëpp cent millions yoo xam ne benn politicien mosu ko am hmm. te Pastef boobu mosu am prisonnier politique mosu ta am benn xeex mosu am affrontement ànd ak ànd diggante ak takk der yi hmm. ñi muy politigal ñoo dem ba gis ne en 2020 ñu gis ne kii kat askan bi benn wateel nañ ko mu am 15 pour cent ñaar ñi ngi koy ketal xaalis. bu bari kon kii fa mu jëm ñun ndox yéegu fa. Mm-hmm. ñoom ñoo jël ay ngànnaay jëm ci kawam pour dakkal loolu. Mm-hmm. mu riposte riposte boobu moo tax mbir mi am ay moor. waaye bu doon jëmi boppam révolution bi ci pacifique la ko doon yóbbu. Mm-hmm. donc kon kooku mooy Ousmane Sonko askan wi nag ñun ñoo war a am fulla ak fayda ci aar ko sàmm ko bañ a def kom xaritu euh, nuróowaale kii mi Aliou Ndiaye. gis naa ko ca télé ba. mu def loo xamante ne naqari na ma lool mooy naan Ousmane Sonko non. Euh, affaire u Atepa Goudiaby non oh, Atepa Goudiaby dafa jàppale sonk kon donc sonk bu toogee Atepa Goudiaby lan la defal sonk Sonko. Mhm. Atepa Goudiaby toog Macky Sall woo ko yónni ko ci Sonko. waaw Macky ko yónni di. mu ñëw ci sonk wax ak moom dellu ca Macky nga ne ko léegi jàppale na Sonko lu mu ko jàppale da koo jox dërëm. wala da koo jox ñaar dërëm. may wax mu naan non transparence bu amoon. Mhm. li waa Pastef di ket ñu xam fan la koy dugal. mais Aliou Ndiaye li muy incarné nee na moom grand journaliste la. waaw mais ana enquête yu mu ci def. un grand journaliste kay bu gisee lu ko jaaxal. Mm. mais daf ciy def ay enquête am. su ñëwee ne man. Mm. def naa ci enquête. Mm. mais dangay toog rek yow am nga ci doute. grand journaliste kay bu amee doute ci grand parti bi gën a rëy ci ci opposition. waaw te Jamil saane moo yor finance bi mi ngi fii. Mm-hmm. chaque année dañuy dem ministre de l'intérieur jébbale état finance bu parti bi. Mhm. mais na dem ministre de l'intérieur xool ba xam lañ fay déposé fiable na. su ko loolu doyut na dem ci Jamil Sané. mais doo toog en tant que Aliou Ndiaye yow. nga nekk say say say say soxna bëtóor di su suyee say théâtre <laughs> ba noppi ñëwaat naan am naa dut ci euh, am naa dut ci xaalisu xaalisu xaalisu Pastef bi. kon donc transparence amu ci. bu ci amul yow loo ci enquête. Ah foo ñu koy waxee. Ah yow Pastef. Mhm. rëbës ñaata détenu fa nekkoon plus de 2000. waaw lan lañ doon lekk lan lañ doon naan. Hmm. avocat yi lan moo leen doon defal lépp luñ bëgg. Hmm. seen i kër yi ñu bàyyi woon. Hmm. parce que fa ko doon yor. lu ci ëpp. waaw dépasse. wala location. ñenn ñi place lañ leen yoroon ñu tëj ko ñu jël place bi di ko fay en charge. ñenn ñi yóbbu nañ ay nit plus de 400 millions def nañ ko ci faj kese. dégg nga. kon donc ñooñu. su fekkente ne Aliou Ndiaye yow mënoo jéem a xam fan la xaalis bi faj gone yi jóge ak ñi yor 10 millions di dugg rëbës par mois daanaka. Ah? ak lii entretien parti bi ba ku génn taxaw ne gërëm naa gars yi nañ ma taxawoo. Mm-hmm. xaalis boobu boo mënta lijjanti fu mu jóge waroo lijjanti ñun suñ ket fan la jógee. waaw nga. Mm-hmm. nit da ngay nekk intellectuel wala nga noppi mais bañ soo ko bañeel goo xam ne. Mm-hmm. bis bi ñuy célébrer élection yi lay laaj lii. ah voilà ci semaine bi Jomaay Faye wane. patrimoine am. Ah. moom moomu mu ñemewut a def patrimoine am. Ah, waaw aussi ñi muy naw ci Sénégal muy Youssou Ndour mi muy wër di waxal. ak ñi muy naw. na ci kenn génnee patrimoine am. kon donc ñi moom na nax jàpp na xoolal nu sax yenn yooyu quoi. ay nekk fii di ŋàññi Ousmane Sonko ci gratuite yooyu lañ war a bàyyi. Mhm. Ousmane sonk ko yaakaar ne li may wax nii nag bu dee damaa ëppal ak lu ma xamut. waaw koo yaakaar ne moo ko gën a yayoo ñu teg ko def ko def ko chef. waaw ngandum dem chef de démocratie. Mhm. da nga koy indi. ne kii kat Ousmane Sonko mi yayoowu ko di woo ko yayoo ñu natt ko ci baxam. Mhm. tant que mënoo ko nag da war a ñun ñoo war a am fullay protéger Ousmane. sàmm ko. aar ko te loolu yi moo ci war a jiitu ñëpp. bu sans complexe nag. ah parce que. na xumay ni mel Iran. waa Iran la. Mhm. na Mahatma Gandhi mel Inde waa Inde la. Mhm. Nelson Mandela na mel. waa waa waa Afrique du la. Mhm. Sonko dafa toll foo xam ne pareegul nag ci politique. moo tax am na yoo xam ne mënoo caa yegg. waaye Ousmane moom dañ koy protéger. dañ koy aar. Mhm. dañ koy sàmm. Mhm. te nañ bàyyi di bind ci moom ay fen ak i gratuit li ngeen wax ci moom lu bon wax ngeen ko ba pare. yooyu dafa war a dal que ba ngeen di wax da ngeen ne woon nguur dong la bëgg. Mhm. moo tax muy rey gone yi bëggul nguur parce bu ko bëggoon toog ci. Ah, voilà kon loolu nañ ko na leer kooku mooy Ousmane Sonko dinañ ci ñëwaat ci yeneen wax. incha allah dégg nga. waaw waaw jo euh, voilà. des léegi euh, temps bi mu ngi kii temps bi mi ngi loolu. léegi Bassirou Diomaye amoon naa lu mu a wax Cheikh président Bassirou Diomaye Faye. waaw macha allah mi nga. xamante ni président Bassirou de. maa ngi koy wax ne. waaw am naw sas. am naw sas benn mooy moom na fexe ba appareil politique am. mu mhm. téye ko appareil bi nag kenn rek la. Mhm. mooy téye Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko tamit na téye appareil am. appareil bi mooy askan wi ndaw ñi. waa diaspora bi mag ak ak ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo doon liggéey ak moom mhm. ci ci ci bi biti su fexee ba téye loolu rek am nañ ci yaakaar mhm. parce que tey gis nga avant ak économie moderne di am mhm. mooy mooy nouvelle économie yi am moderne yi waaw avant muy am maanaam buur bu maandu foo ko mas a gis ñàkk jeex na da koy jël exemple ci ku mel ne Omar Ibn Abdul ah, ah. amuñu woon ay PIB amul woon ay banque mondiale yooyu lépp amul woon yooyu yëpp mais bi maandoo ci nguur gi doxal dëgg rek. Mhm. da ngay gis ne diir bu gàtt. Mhm. ak ñàkk dafay jeex. kon donc waxuma la li ñu am ci ay ressources. waxuma la ay banque ba àdduna bi ni mu koo léegi. Mhm. économie vision économie yi am. mais su doon tane ñun Sénégal buur bu maandu dëgg tam te tamit dëgg ci moom rek lañ am. kooku jàpp nañ ne ñàkk day jeex. te man gëm naa ne. maandu ga woon ci ñoom Omar Ibn Abdou Aziz. mi ngi ci jomaay. kon jàpp naa ne. lenn moom danañ ko am mooy. pauvreté moom. Mm-hmm. dana fi jógee ndax parce que koo xam ne nag mm-hmm. su fekkee Abdou Diouf damaa jàppatul kañ la def prêtement de serment Abdou Diouf kañ la kañ la def relevé de fonction bi la jël fonction mooy passation de service 83 la jël kii parce que moom da Senghor moo ko joxoon nguur non Senghor a ko jox 80 80 euh, non 83 80 kii la ko jox nguur gi ah. mais dafa dawal. kat non ma defe ne quatre élection yi man daal li ma xam mooy ba Abdou Diouf di jël nguur gi daal booba jomaay dañ koy doog a ngénte. ci gàttal. Mm. ndax su ma juumul jamaay bisub le 2 avril lañ ko ngénte kon nag le 2 avril 80 lay lay nekk ngénteem ci la 25 la judd kon <laughs> wala le 3 bi mooy nekk ngénteem koo xam ne nag maanaam bañ lay ngénte mhm. la ko defoon prêter de serment tàmbalee yàq yëf yi mhm. di yàq di yàq ngay judd nàmp muy yàq mhm. ngay ngay jàngi muy yàq nga nekk université ñuy yàq ba nga dem ba toll ni nga toll ba mën a yor nguur gi mhm. ñëpp ñu fi jaar daanaka ci yàq yàq économie beeg yàq nguur gi lañ nekk wal kooku mhm. defar ko lu jafe parce que boo boolee ba Abdou jëlee nguur ak douze ans yi Wade ak douze ans yi Abdou mooy quarante quatre ans net mhm. vingt ans yi Abdou Diouf douze ans yi Macky Sall douze ans yi mooy quarante quatre ans yi Diomaye am kon da moom bi bi Abdou Diouf di jël nguur gi booba ab liir la buy nàmp wala bokk ñu doog a ngénte la donc kon loolu dafay wane ne mbir mu sori la waaye nag maandu ak ak xam-xam amul lu mënta ñàkk defar mhm. lu mënta defar amut mhm. te gis nga yi maa ngi koy dénk benn affaire mooy lan mooy na fexe ba nga xam ne entrepreneur yu ndaw yi yi nekk ci réew mi mhm. mu fonk leen parce que ñooñu euh, seen liggéey dafa jafe parce que état bi daanaka reconnaître leen lu tax reconnaître leen mooy jànguñu tubaab waaw boo jàngul tubaab rek du leen xam te pourtant ñooñu li ñuy porteel économie mhm. dafa bari mu fexe ba nga xam ne suñ soxlaa ay prêt ci banque bi mu yomb wala mu wutal leen beneen forme boo xam ne duñ dem ci banque bi ba noppi mhm. mën a am prêt tam fexe ba xam leen daal mhm. parce que ni mu leen di xamee loolu beneen façon la boo xam ne état dina ko xam mais mu xam xam leen mën a jëflante ak ñoom te sax nag même entrepreneur bu ndaw Mhm. su defee yenn chiffres yi ci banque. état bi gis ko ba xam ni kii kat entrepreneur bu loolu def na yenn chiffres yi. Mhm. dañ ko war a may mu am passeport diplomate. Mhm. pour tukkeem di yomb. parce que kii def yenn chiffres yi ci Sénégal kooku moom xalaatul dem bitim réew di fa toog. kon kooku tijjil ko yoon woo xam ne dafay tukki tukki bu gaaw di mën a dem di ñëw pour liggéeyam gën a baax. loolu la la la la la nga xam ne. maanaam bu ko defalee askan wi jàpp naa ne ñu bari parce que Sénégal ñu nekkul ci biro yi ñëpp. ñu ngi ci seen boutique ñu ngi ci seen affaire ay yu ndaw di. taaba taaba taaba taaba waaw. nga kon ñooñu bu leen xoo gestoo rek daanaka day may wax ne gestu na Sénégal yëpp. Mhm. li ci des nag mooy ñaanal ko yàlla. Mhm. mbir mi jikko. te yomb ci moom te nooy ci moom. di ko wax nun nag. Mhm. jeex na. ma ñëw ci sama programme. waaw sa sa programme. waaw léegi eh, waaw mën ngaa ñëw ci sa programme Cheikh Bara. ñun nag. waaw ay dongay daara lañ yoo xam ne. Ah, lii ñuy def naam du suñu métier muñ jàng waaye ñi ngi ci tax sénégalais yi bëgg nañ ko mm-hmm. waaye di wax rek euh, ñun mm-hmm. suñu diggante ak ak ak Ousmane Sonko laay wax waaw maanaam xuus ndox ba ci baat la amatul dëpp amatul dëpp waaw mm-hmm. maanaam nekkul diggante boo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga wàññi ko waat taxaw fee di ko sànni xeer wala taxaw fee naan man du la jege duma wax ak yow non non du def loolu man li may def mooy gëm naa Ousmane Sonko gëm naa joomaay gëm naa ne li ñuy defar baax na. Mhm. pour sacrifice yi ñu ci def te loolu peuple bépp laa ciy woo. sacrifice yi ñu def ñun. Mhm. ba teg fi ñii. Mhm. dafa soxlawaat yeneen sacrifice yu ko gën a xóot. pour ñoom ñu gagné li ñu ñu xam ne li ñu doon def kat pertuñu ko. su ma xalaatee sama grève de la fin ya xalaat sama sama garda bii sama kaso yi. tey ma gis ne la ma doon def kat neenul mu ngi nii téye naa ko. loolu dooy xam ne pertu ma woon li ma doon xeex comprendre nga mais su fekkee nag kenn ku ne dafa bëgg wane ne man noo du ma du ma intéressé ci nguur man li kenn ku ne njëkkante yàkkamti wala ñu fexe ba dóor ñu ci seen kaw ñuy ñuy ñu ñu ñu teel a taxaw di di di di mel ne ku koy gàllankooraat su boobaa ñun ñooy grand perda yi ñun askan wi kon nañ takkaayu jàppale ko man nag suji laa xaw man nu ñu koy waxeete on est pour toit pour vous ah pour qui pour pour pour waxuma ak yow de on est pour les projets des PASTEF. Ah. Pour, pour, ta, pour, euh, pour t'accompagner euh, jusqu'à jusqu'à bout. <laughs> léegi nag maa ngi wax ne kon ñëpp. politique bi jeex na. Mhm. campagne yi jeex na. maa ngi waat ci sama liggéey. Mhm. muy ca daara ja ku am mhm. donga boo bëgg mu jàng alxuraan. te du fay dara. soo ko ëddee bu soobee saa borom mu jàngal ko. incha allah ku bëgg a faju hémorroïde muy seere. biir buy def ngelaw kur ballottement articulation yu metti ndiglu yu metti mm-hmm. oom yuy tàng mm-hmm. euh, di géex boo lekkee mu ne kekk sooy dem toilette air er rek di génn mm-hmm. wala ngay dem mu mel ne ay bul mooy génn wala muy delloo sa awra nga mel ne luy tuuti yooyu yëpp boo ko soxlaa soo ñëwee ca kër ga suba ajjuma di ma fekk sama kër wala sangat ubbeeku mooy sangati sunguf yooyu bu werte bi bu weex bi ak bu xonq bi nga xam ne mooy faj rabak cat ak sangatul njare ak sangaayu ubbi kook yooyu noonu daal mm. ku ko bëgg boo ñëwee ci kër ga suba àjjuma di nga ñu fa fekk danañ la seetal danañ la defal ñaan mm. maa ngi kër ga àjjuma cité sëñ Mansour terminus 48 mm. wetu osan bi nekk sax mbaaw rek euh, boo ñëwee àjjuma danañ ko fekk samdi dinañ fa nekk dimanche dinañ fa nekk altine mooy bis bi ñuy faj wàllu rab rab bi ci benn fan lañ koy faj da ngay ñëw ci bis bi. ne man la dama da ngay woote ne damaa bëgg a faju rab. lañ la wax ni ngay def soo ñëwee ci bis bi ñu seet ko génne la rab bi ci bis bi nga dem dootu fa ñëwaat. noonu lañ koy defee. macha allah ku ci soxla. ak rab nu mu la mën a def nag. ak mm-hmm. bépp problème loolu la mën a indil soo ñëwee ci bis bi ñu dindi ko. di wax ko ci soxla da ngay woote ci numéro yooyu. Mm-hmm. talaata àllarba alxemes ñi ngi sit ñi ngi asalem 2 ginnaaw école Madieye Sall. mbooleem garab yi ñuy faje ak sangat yeeg yëpp rek mhm. am na mbuur ci ginnaaw osan bi ku ñuy wax aboo taal moo fa nekk mhm. soo wootee ci numéro boobu di nga dem ci moom di nga mën a am garabu émorite garabu ngóora garab yi ñu fajee yëpp am na Thiès kër gi jàkkaarloo ak kër Mbay Juuf euh, bu cees mhm. ñoo jàkkaarloo net ku fa dem tamit Assane ma nga fa am na Touba wetu kër sëñ Bass Abdou Khadir ca Talib Guédé ba am na Casamance wetu kër Ousmane Sonko waaw boo ci dem ci boutique yooyu rek di fekk ñu am fa garab yooyu di wax ñëpp kon ñu ngi jégglu sama mbokk yi sama xarit yi hmm. dellu siwaat nañ ci suñ programme liggéey ni mu daan demee hmm. même heure même jour ah. euh, liñ passé woon liggéey la woon boo xam ne Sénégal ko soxla woon moo tax ñu suspendroon ko hmm. bari na ñu ma amaloon ay rendez-vous mujj nañu mënatuñ maa gis wala ñu ma waroon a jot téléphone mënuñu maa jot ñu ngi leen di wax ne ñu ngi koy jéggulu léegi reprendre nañ liggéey bi normalement maa ngi nag nuyu mention très bien mhm. euh, Abdourahmane Diouf mhm. waaw Abdourahmane mënu maa wax ci moom fii tax taa bi jeex na mhm. mais suma lider la man waaw dama ko gëm te vraiment bu ñëwee ci Pastef tey jàppale leen maa ngi koy ñaan na dem jusqu'à bout parce que soxla nañ ko ñun voilà max moom boroom xam-xam la ñëpp ko soxla d'accord mais saak ngooñ lu mu doon jar temps <laughs> bugaan bugaan bugaan day baykat bu xamatu xiin xam nga baykat bu wuteew ba yor ko da ngay xamu xiin rek nga xam ne xiin waaye boo toogee ba mu ne wérét après du baax. jërëjëf Cheikh Bara macha allah am na solo ñuy euh, wax di joxe numéro bi di 77 610 81 81 77 610 81 81 ngeen jokkoo ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis seen aajo faju ci kàttan Sanjogu bu ma waxoon lii du ma am du ma du ma du ma am lu ma neex. la deux. waaw incha allahu. le passation de service entre Diomaye fay ak Macky Sall. waaw di wax nag bis boobu du bisu Diomaye. Mhm. bisu Macky Sall la. Mhm. moom moo ci liggéey bay wàcc. di ñaan askan wi. nañ ko sargal. nañ ko sargal waaw ci bis boobu. Mhm. ak nu mu mën a demee rek. nañ ko taaj dafa liggéey douze ans. mi ngi jeexal kum romb. kum fekk fa place boobu ñëpp. nañ ko sargal ba bis boobu mu xam ne mhm. ah vraiment ñun sax dañ ñoo ŋàññe ne ñun saaga ak xas rek lañ man mhm. ñu wan ko ne ko mën nañ bis nag bu ah. sargal nit jotee danañ ko sargal la ah. deux mhm. suuru Macky Sall la di ci sargal tamit bépp nit bu mu doon àndal moom waaw maanaam bépp nit boo xam ne ci 12 ans yi Macky Sall ànd na ak yow liggéey ak yow ak lu liggéey ba nu mu mën a demee rek ñun sénégalais yi ñu ngi lay sant te ñu ngi lay gërëm di gërëm Maodo Malick Mbaye aussi parce que bi ma gisee élection yi leer rek xam naa ne xalaatu daang ci biir de. Mhm. parce que Sénégal Macky Sall dafa bari woon ñu ko jege woon. Mhm. te doon di ko wax loo xamante ne naka su dul noonu. Mhm. mais ak lu mën a demee rek. toog na 12 ans. jeexal na. waaw nee na demut troisième mandat. organisé na ay élections. bis bi jot na bu Sénégal gépp génnoon Macky ñëwut. Mhm. bis bi du sotti comme menn moom la démocratie sox Sénégal soxla bis boobu mhm. bisam la nañ ko ko sargalale mhm. waaw maa ngi koy ñaan nag Sénégal yëpp waaw macha allah waaw loolu am na solo li nga wax noonu am na solo kon ñu ngi woo Sénégalais yëpp ña nga xamante ne nañ fa nekk nañ ko sargal tàcc ko euh, ñaanal ko mu daal euh, rafet parce que mm, lu rafet rek moo jar kii loolu rafet na trop macha allah ajaratu. Mhm. Eh, lenga yaa ngoow. ayca remercier naa la bu baax a baax Alaaji di remercier Cheikh Baara Ndiaye borom def gis ak Abo Tall mbuur musaa maa ngi lay remercier Baye Ali ñoom Cheikhouna ak baay mbay yëpp ñu ngi leen di nuyu encore une fois di nuyu waat kat yi di ko remercier bu baax a baax ayca mi ngi noonu lii lañ leen indiloon ci télévision bi ngeen topp ñu ci euh, solution TV ñu ànd ak yéen ci Nepad musical. TIC Solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show